li am c'est mm. de c'est du banditisme li am démb ci ndakaaru c'est purement du banditisme xam nga tax ma ne du banditisme ñoo xamante ni seen yoon newu ca ñoo xamante ni seen dara xewu ca je prends l'exemple benn station service bu nekk sama liberté rond-point saa yu problème amee ñu taal ko ñu daaneel ko saccage ko yàq ay bagage ay sénégalais ñoo fay xëy di liggéey BRT bii ñuy taal di ko saccagé lan moo ci yoonam. bus yu ñuy lakk. bii yu ñuy lakk seen population yi di ko jël lan moo ci seeni yoon te ñoom ñoo koy jël ñun ñooy jël bus yooyu lan moo ci loolu c'est du banditisme du leneen lu dul banditisme. ay nit des jeunes encagoulés boor seeni saak def ci cocktail Molotov xool sa oto ba mu rafet ñu toj vitre bi sànni ci cocktail Molotov loolu noo ko tuddee. c'est pas banditisme ñu daan def loolu c'est pas les ñoo doon def loolu